gis nga réew moo gis mu dem dafay am jamono boo xam ne yàlla dafay indi kilifa yoo xam ne seen itte yëpp mooy fexe réew moomu tegu ci raay bi jub te jub kenn mënu koo def lu dul yow mi nga xam ne yaay jiite réew mi dangaa jub asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen waa Sénégal yéen mbokki senegaal maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñi ma xam ak ñi ma xamul ñépp nag képp kuy citoyen sénégalais ci àddina bi maa ngi lay nuyu fas yéene yëkkati sama kàddu tàbbal ko ci biir réew mi di wax ni élection législative yi nga xam ne moom la ñu war a def le 17 novembre man sëñ Ibrahima Laye maa ngi woo képp koo xam ne nit ku normal nga nit ku bëgg lu baax nga nit nga koo xam ne sa réew ñor na la muy senegal nga voteel parti PASTEF ñu am majorité à l' à l'Assemblée nationale lan moo tax ma wax loolu euh, Sénégal dañoo voté élection présidentielle yu méttee méttee métti yu difficile ci weeru koor ñu élire président Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République mu nekk ndaw nekk xale am jom nekk nit ku yaru nit ku baax nit ku sell nit ku dal nit koo xam ni dañu am ci moom yaakaar bu rëy rëy rëy pour jàppale ko dooleel ko pour Sénégal développer Sénégal dafa war a développer comme réew bi ma nekk tey nii man fii ma nekk nii réew mu développer la te dama bëgg Sénégal mel noonu ëllëg doom yi ñu am set yi ñu am jarbaat yi ñu am bu ëllëgee ñu mën a nekk ci réew mu naat seen xel dal ñuy jàng nekk ci dëkk boo xam ne bu am sécurité la nekk ci dëkk boo xam ne dañuy lekk dañuy naan dañuy faju te loolu ku ko bëgg doo jël sa carte dem di voteel ñi nga xam ne pendant douze ans wala vingt quatre ans ñooñu ñoo yàq Sénégal ak dix neuf yi ko jiitu woon maanaam dama bëgg a wax ni voteel ku bokk ci parti socialiste voteel ku bokk ci parti démocratique sénégalais voteel ku bokk ci APR ku bokk ci AFP ku bokk ci taxawu Sénégal parti yooyu yëpp képp ku jël sa carte dem di leen voteel xamal ni yow yaa ngi suuxal réew mi parce que ñooñu voteel nañ leen ba pare ah. voteel nañ leen jox nañ leen ñu nekk président de la république jox leen ay majorité à l'assemblée nationale te taxul Sénégal dem fen ñooñu ñoo yàq Sénégal defuñu si réew mi dara lu baax Sénégal heure bii waroon na fekk mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu naat lay doon dëkk bu yàlla teral parce que Sénégal loo ci mën a wax lu mu metti metti metti yàlla def na fa sutura ak teraanga mais loxo yu set yu ko téye ak xel mu sell ak nit ñuy jub tegu ci yoon di doxal dëgg ak yoon loolu moo mësul am ci Sénégal gis nga ñi jiite woon Sénégal de 1960 ba la le 2 avril boo jëloon gouvernement yooyu yëpp dajale leen jox leen andi leen ci réew mi ma nekk tey nga jox leen ñu yor réew mi wallahi réew mi day daanu day daanu parce que esprit yi ñu am ak xalaat yi ñu am ak façon bi ñuy doxale ak ñàkk jub ak sell gi nekk ci ñoom loolu mooy daaneel réew mi defe naa sénégalais bu conscient ci sa àddina conscient ci sa doom wala sa sët wala sa jarbaat ngay xalaat pour ëllëg sa njaboot googu nekk ci condition yu baax doo jël sa carte électeur dem di votel ñooñu xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom lañ fal bark demb musuñu yor nguur nañ leen votel ñu am majorité à l'Assemblée nationale ñu soppi loi yi nekk ci réew mi teg ay loi yu dëgër yu baax doxal dëkk bi ci dëgg buñ ko defee ba mu am juróomi at dinañ gis soppiku gu wér a wér wér wér ci Sénégal président de la République du Sénégal basiiru Diomaye Diakhar fay son excellence dafa soxla assemblée nationale boo xam ne bu jub la comme ni mu soxlaa présidence de la République nekk institution bu jub noonu la soxlaa assemblée nationale mu nekk institution boo xam ne ña fay dugg ay nit yu jub doon ñu vote ay loi yu jub loi yu baax yu tegu ci dëgg ñu mën a liggéey senegaal mu dem ci kanam mbokk yi maa ngi leen di wax loo xam ne lu am solo la gis ngeen ñi jiite woon Sénégal tooxidoone yi ñu def ci àddina bi ak ci Sénégal bu leen ko xamoon du ngeen mus a yeewu suba teel jël seen carte d'identité dugg ci mbañ gàtt di jël seen ay bulletin di leen voté képp ku ko def mën nga ko bañ a rëccu dans l'immédiat mais dans l'avenir di nga ko regretter. kon maa ngi leen di ñaan yéen sénégalais yépp le 17 novembre où que vous soyez votez pour Pastef.